jërë ngeen jëf internet Pikine Info ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di amat amati contentement di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk nag nee naa leen ni ngeen ko bëggee noonu la ñu koy defee gàddu suñu waxukaay bi dugg ci dëkk bi xool li ngeen soxla ak ñu indi leen ko ci noone la ñu daal di duggee rek fi nga xamante ni bii moom moo di Pikine école fu quartier bu ñuy wax Daaru Xuddoos daal di ñëw nag ci benn daara joo xamante ni bii mën nañu ne ñi nga xamante ni xam nañu existence daara ji sax bariwul mu doon ab kilifa boo xamante ni moom moo fi nekk yor fi daara di fi jàngale alxuraan mu nekk passion ci moom ndaxte lu ëpp 70 ans ngi nii mu koy def ba tax ki nga xamante ni moom la ñu fas yéene sekkal suñu waxtaan mooy euh, doomu borom daara ji moo fi nekk ci daara ji di jàngal xale yi ndax gis nañu ni léegi góor gi mag la macha allah mag ngi dugg ñu koy ñaanal rek mu gën fi yàgg di gunge xale yi ba ci kanam incha allah ku baax ki ñu ngi lay ziar. alaykum wa rahmatullah wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi gannaaw bañ sant yàlla ñu ngi julli si yàlla muhammad sallallahu alayhi sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo teewee bi sa nekk fii mooy borom daara ji yow nga nekk fii di jàngal xale yi boobaak léegi yan yan yan jafe-jafe ngay faral di jànkonteel fii ci daara ji ak xale yi moom bu nekkee si daara di jàngale même même bu daara sax dina am ay jafe-jafe yu mu jànkantool même école sax am nañ ay problème yoo xamante ñu ngi jànkonteel ñoom si école bi kay ñun fii naa wax ne sant yàlla rek ndax ndongo ndongo yi nekk fii yëpp fii la ñu fanaan benn problème boo xam ne mooy fi ñuy mbaar bi nga xamante ne ni ñu ngi ko tabax ñu dem ba si digg bi liggéey bi taxaw pour euh, à cause de manque de moyens dégg nga ak li nga xamante ne aussi mooy wàllum toilette aussi dafa baax si kër parce nit koo xamante yor na lu ëpp ñaar fukki xale wala fanweeri xale ñoo ñu noonu dégg nga day baax seen tu maanaam toilette bi aussi baax dégg nga ñu am ay matuwaay yu baax yoo xamante ne nii daanaka dana dana yombal xale yi seen njàng. dégg nga ñun daal ñu gën a yitteel daal jamono ji mooy li nga xamante ne nii mooy fii daara ji fii ñu ne. dégg nga ñu comme fii nii salle bi salle bi nii salle de classe la dañ ko defar pour xale yi jàng si. buñ neexoon def ko néeg mais salle cas lañ ko def pour xale di si jàng dégg nga buñ sañoon am nongo ndongoy am nongo yi am nañ fu ñu ne waaye buñ sañoon tamit ñu am leneen loo xamul parce que ñoom voilà ñu gën leen jàppale daal parce que ñoom dañuy ñëw rek. dégg nga ndongo yi ndongo yi ci ci ci ci ñaata la ñu toll. ñaar fukki waaw yoo xamante ne ñu ngi fii si kër gi la ñuy fanaane waaw Kolda seen seen waajur yi ñoo leen di indi pour ñëw jàng si. daw dem wala wala wala mu fàkk dem ñibbi mbaa mu fàkk dem ci ñeneen ndax yu mel noonu di ngeen faral di fàkk am mos ñu am nekk boo xamante day fàkk ak yooyu noonu ndax xale yi wax dëgg yàlla xale yoo xam nga xale tamit bu neexee yor dalay yombalal li nga xamante ne nii mooy li nga ko xam-xam yi nga def si moom dana yomb si moom waaye nag mosuñu am kaa day jug di fàkk ak yooyu noonu di si yoo maanaam kenn jiwandiwu ko xale yi toog fii yëpp fii lañ ne si kër gi dañuy jàng wàcc bu ñu wàccee ñu ngi fii si kër si seen néeg dégg nga wala ne bañ na ko sax ba sëriñ da leen jëndal téléphone aw dañuy dem di yalwaani waaw dañuy yalwaani moom yalwaan moom mënul ñàkk si taalibe ndax li nga xamante ni dañuy ni leen boo leen di wàcc indaale leen temps comme mu nekk benn somu xaalis wala mu nekk ay ceeb suukar yu mel noonu dañuy faral di ko gis taalibe yi di ko di ko dajale pour yóbbu ko ci seen sëriñ yi ndax yooyu am na fi. fii sëriñ bi moom sosul kenn dara des fois am na taalibe yoo dañuy ñëw duñu indi dara ne aw ma dara aw ma ceeb aw ma xaalis dégg nga mais moom daa wax dëgg yàlla jëlul jëlul taalibe bi daal. Eh, di ko di ko sas waa di ko sonal ko par force da ngay indi lii déedéet waaw loolu noonu loolu noonu bu yàgg esclavage lay nekk nekkatul nekkatul maanaam te eh, ngir yàlla lu gën a am important mooy mooy nga def si moom xam-xam ku demee wuti nag yelluwaani bu amul tamit na ko baye mu ñëw jàng waaye ñun moom kaa ñun moom eh, du noonu la ñuy liggéeyee daal bari na si daara yu bëri yoo xamante ni nii sen sen seen añ ñoom ñoo ko yelluwaani dégg nga waaye fii ñoom dañ leen yàkkal añ maanaam spécial ñu jox leen pour que rek bañ leen sonal waaw xale yi bu ñu jàngee ba ci ngoon bi seen nekk waaw bu ñu wàccee ba ngoon dañuy nekk seen néeg seetaan télé ba be yenn heure yi guddi tamit bu ñu jullee timis ñu jàngaat diggante boobu tam bay 11 heures du matin bu ñu wàccee ñu tëdd nelaw waaw. ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk néeg bu ñuy tëdd waaw. Ah. loolu ndax jàppoon ni dina indi tamit yeneen jafe-jafe feebar wala lu ni mel ndax lu toll ni téeméeri xale wala fanweer nga boole leen ci benn nekk. waaw am nga lu olof Njaay di wax ne rek boo boo amul boo amul ndey da ngay namp maam bu dee amoo ñaari néeg beneen nga am nag leen boole si benn néeg waaye li ñu gënaloon tey bu ñu amoon ñaari néeg wala ñetti néeg nga xam ne maanaam duñu leen mën a départager. la ñi nga xamante ni fii la ñu jàngee kilifa googu moo ko jàngal dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ak ñi ñuy seetaan laataa ñuy sekk ak suñu wax. daanaka si këppaaroon nañ ci lañ magee daanaka ñoom jàng nañ ba pare wàcc nañ léegi mais ba léegi ñu si daara itam. ñu ngi jàng booba daara woon comme ni mu ko nekkee tey xale yi fi di fi jàng am léegi eh, dafa nekkoon rek foo xam ne da ngeen di ñëw jàng wàcc dem dellu kër ga. Mm, fii lañ dëkkoon. Mhm. buñ doon jàng fii fii lañ doon fanaan fii lañ defee lépp. waaw ba yàlla daf ñu pare ñun ñu ñibbi am ñu si bëri ñibbi nag yàlla daf ñu ñëwaat nag fi ñun waaw. souvent damay ñëw di ziyaaroo Touba Argentine a que la jàng jox la xam-xam xamoo fa kooku mënoo ko fàtte am na ñoo xam ne nag ñi bi na am ne nekk ba Casamance ñu mu ngi fa am na ñoo xam ne yàlla jëlee leen fii képp koo xam ne da nga nekk si daara ngay jàngal parce que yeneen bi moo ko wax ko man taallama a wa allamahu yàlla nee na waaw yàlla dafa wax ne lu gën a baax si yéen képp koo xam ne yàlla daf la jox alquran ba pare nga toog ngay jàngale waaw loolu yàlla loolu yàlla dafa santaale loolu si góor gi buñ ko xamee ba léegi ñun bu ñuy ñëw jànge fii am na ñeneen ñoo xam ne ñoo fi njëkkoon jàng ñooñu mun naa am mun naa wax le ëpp na 50 ans ñoon ñu mbokk nañ si troisième troisième eh, kii fusion eh, lañ la ñuy bokk de première deuxième troisième ñun si quatrième bi lañ bokkoon. nga ñëw rek ci ci li nga xam ni nekkoon nga ci léegi ma dagg la muy ndimbal nit ñi dañoo xamoon rek taalibe boo yëkkati dërëm wala fukki boo ko jox. yow nekkul taalibe bi ngay kiiwal yow sa bopp ngay jàppale. Mm-hmm. parce que sarax boo yëkkati jox rek yàlla wax na si alxuraan ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu mm-hmm. lépp lu su lu waaye dépensé si poosam joxe loolu yàlla dina la ko remplacer. Mm-hmm. alors euh, ba tey rek ñoo ngi fii ci Pikine Daaru Xuddoos dañuy jàkkaarlool nag benn xale boo xamante ni moom itamit ci ndongo yi ci daara ji la nekk di fi jànge ñu daal di sekk ak moom moom itamit tuuti waxtaan rek gannaaw ba ñoom ñoo fi nekk jamono jii di jàng ñoom ñooy génn ak dem ak dikk di yalwaan ñoom ñoo xam li nga xamante ni ñoom ñu ngi ko fi jànkonteel euh, Ibrahima nuyu naa la. maa ngi kañ nga ñëw ci daara ji. 2015. 2015 ba tey yaa ngi fi. waaw. Mhm. depuis 2015 maa ngi fi maa ngi fi nekk. ngi fi nekk. oui. boobaag léegi mos nga delluwaat seen kër wala bi nga ñëwee ba tey jotoo delluwaat. déedéet si jàmm rek lañ fi nekk de. si waaw te moom laay delluwaatee. say say waajur yaa ngi leen di dégg. waaw maa ngi leen di dégg kay. Ah. waaw ndax mos nañoo ñëw seet la fii. waaw parfois dañ may ñëw seet ñu laaj ma ba xam maa ngi jàng ma ne waaw bu baax ndax fii alhamdulilah rek lañ mën a wax ndax chaque jour ngi jàng di yeew di jàng si jàng noonu jàng bi la gën a yokkee lu ñuy rek noonu la xewel yi di ñëwee kon mun nañ wax alhamdulilah rabbil alamin di gën a sant yàlla rek. amul yenn yoo xam yéen a ngi koy dund fii. déedéet fi mu à part sëriñ bi rek alhamdulilah mën a wax ndax fii. chaque jour bu ñu yeewoo fajar 5 h dañi japp julli bu ñu julee ba paré daal di commencé jang ba 6 h jël pot di dem yelawa mosu dal ngeen dem di yalwaani ci kër ñu jànni leen wala ñu dàq leen ba ñu jign leen sacc dedet musul am de bu ñu demee si kër yi dañi jang alcorane bu ñu jàngee alxuraan ñu daal di jox sarax te bu ñu joxee sarax ñu dem sëriñ bi mës na leen a sas wala ku mel ni yow ñu sas la loo xam ne amoo ko nga ragale ñu bisi déedéet am da ngeen wàccee lan la faral di leen di laaj bu ñuy wàcceel bu ñu wàccee dañuy toog 18 heures ba kii ni 19 heures dañuy réviser ku nekk am ma wala tabaara ba naasi ñu réviser ko wala ñu jàng a ah, a ah, ba ta sadio yooyu di gën a yokk liir bi liir bi di gën a yow biñ fi ñëwee 2015 commencé fee jang ba 2022 ci digënté bi kañ nga commencé mokal alquran commencé lire ak bind alquran sama sëriñ moo ko jangal liir bi tamit moo ma ko liir bi amna solo lol si alquran ndax moy tax ba nga xamé bind yi te nga mëna lire alquran te presque bo mëne lire alquran presque mu nga jang téré bi yépp ndax lo si lire a wala ba wala ta mu ngi ci alquran lolo tax serigne bi buma fi ñewé lol la ma lol la ma ñëk jangal muy ba si mimra ki fi gëna ndaw fu mu toll ki fi gëna ndaw mu ngi toll qul wahiya suratul jinn man ma ngi toll qadaf lahal mu'minin wacce go oui wacce go dedet des na tuuti te inshallah avant 2023 bëgg gor gor ba wacce boo wàccee da ngay bëgg a ñibbi sa sa dellu ci say wetu waajur wala da ngay bëgg a reste fii ci jàngal xale yi. bu mu ñibbee bu ma ñibbee damay dellu si waat pour jàngalaat ñoo xamante ne xamuñu te baax na si lool comme sànq kay xaddis bu mu wax fii rek man ta'allama al-Qur'aan wa 'allamahum loolu. lu waral boo ñibbee nga bëgg a ñëwaat ak toog nekk ak say parents ni mu neexee lu waral boo demee nga bëgg a dellu si waat fii ci daara ji. ndax fii dama fee miin ba pare te xale rek. foofu ngay tàmm nekk. doo leen faral di fi am yenn jafe-jafe. jafe-jafe déedéet musul am de musul am. tëddin wi nekkin wi lépp macha allah. alhamdulilah rek ku nekk sama sëriñ taalibe bu sopp sëriñ moom nekk moom alhamdulilah rek ngay nekk ak moom. nga leen ñu doon indil tey ay ndimbal fas yéene jël alalam def ko ci daara ji lan nga koy wax yow yéen ñi nga xamante ni yéen a fiy jàngee moom ngeen gën a soxla. na ko jëmale si sëriñ bi. après bu ko joxee sëriñ bi sëriñ bi daal di ñu koy jox ñu sant gër sëriñ bi gërëm ko. mais yéen gën a soxla. lan lañ gën a soxla muy téere alxuraan. alxuraan ak ay lal fu ñuy tëdd. ak ay lekk. baax na si trop. amoo amoo leen problème yére yére bëgg nañ yére ak daal lépp nit di soxla comme ni nga nekkee sa yaay ak sa papa nuñ lay kiiwee. nu ñu lay defarale lépp loo bëgg nu ñu la koy defaree fii tamit noonu lañ ko buggee ñi ngeen di sol ni ay yére daal sëriñ bi moom moo leen koy jëndal wala nit yi ñoo leen koy sarax si. sëriñ baa ñu koy jëndal ku amul dàll rek mu ne la avant ngaa dem yàlla ni ma jëndal la si bitig bi dàll carax wala plastique pour nga mun kaa sol dem parce que marché bi marché fii bu ñuy yelwaanee zinc dafa salte alors ku baax kii ba tey ñu eggali nee nga xalé yi seen lepp fi lañ koy défé lepp sëriñ bi mo ko yor te amul kenn ko xamante bi dina fay wala lu mel na xam kon xalé yi li nga xamante mo lañ la yalla na ko indil sëriñ mom lay dajalé ku ci fébar mu ku ci am benn soxla bo xamante bi sëriñ bi war na ci mëna taxaw mu taxaw ci yalwaan yi la ñuy am bi dafa am ay yoo ñoo ñoo koy indil ay jàppale euh, sëriñ yalwaanu xale yi rek la yaakaar yaakaar naa du dund ndax ah, sànq wax naa si sama biir wax nee naa la léeg-léeg dana am ay taalibe yu ñu tey moom aw dara sëñ baax na toogal nga jàng kon loolu kooku noonu am na yërmande si ay xale beneen bi moom lu muy lu muy lu muy dundee loolu si yàlla la aju dégg nga man man man si man doomam laa dégg nga man maay doomam bu gën a ndaw waaw yaa ngi dégg mais li ma li ma li ma xam si moom daal dégg lepp leppam léppam si yàlla si yàlla la ko wékk ay problème danaka sax mom souvent do do do do ko gis sax muy jël ay problème diko dis ay nit dégg même dem sax euh mass bu mu fi ñëwé di expliquer yi dafa waxoon nono jaru ko man ma waxtana mom ne ko comme que àdduna euh, am na ñoo xamanteni ay bonne volonté ñu ngi ci dëkk bi dañuy bëgg def waye dañuy gis dañuy gis ay preuve leer dégg si dama man comme baax na ñëw lolu motax waye lima la mëna wax dal ci gattal serigne bi mom dundam yépp daanaka nit bu la joxee doomam bul ko jàppee esclave bul jël tamit doomu jàmbur yaa ngi dégg di ko gënal say doom dégg nga sëriñ bi tey boo ñëwee si daay doo doo xàmmee doo doo xàmmee doomam doo xàmmee sëtëb doo xàmmee taalibeem ndax ndax ñëpp benn lañ ah non ay sëtam ay sëtam ñoo fi nekk ñoom nekk ñu ngi fii nii si daara ji dégg nga waaye moom doo xàmmee doo xàmmee ñun ñëpp fii daa ay taalibe lañ amul doom amul sët ñun ñëpp ñun ay taalibe lañ waaye lu may lu may dénk ñoom mooy nañuy am yërmande si xale yi dégg nga xale yi ñu def si ñoom xam-xam pour ëllëg ñoom bu ñu màggee nekk ci leneen ñu mun laa bàyyi xel ndax xale day xale day jàpp te booy nekk di ko sonal di ko noq di ko sonal di ko noq loolu da koy jàpp day maanaam day garaabe sa mémoire am ba bu màggee day maanaam mën naa rebelle wu nekk sa noon te fekk jaru ko moo taxit it euh, sëriñu daara yëpp sëriñu daara yëpp nañu am xolu yërmande yërëm xale yi xale yi bu ñu demee yoluwaane bu ñu amee baax na bu ñu amul baax na na nga na na na nga jël xam-xam def si ñoom ndax loolu moo tax seen waajur jox la leen beneen bi tamit parent yi tamit ñoom it lu ma leen di dénk ñoom it nañuy bàyyi xel seen seen doom yi ndax du yoon yow nga indi sa doom rek ne ko dénk naa sama doom dem sa yoon toog bu fee bu xale bi feebaree xamoo si dara bu bu bu feebaru xamoo si dara lépp sëriñ bi la dégg nga te tey xale bi bu demee ba bon tamit dañ naan sëriñ bi ko def nii fekk yow doo doo doo am xel sax di woote di di woo sëriñ bi téléphone waaw di di nemmeetu sa sa doom si lu mu ne dégg nga parents yi tamit na ñuy bàyyi xel si loolu noonu tamit di di bàyyi xel xale yi di dàmb di dimbali tamit sëriñ sëriñ si da sëriñ si yaakaaruñu kenn yàlla rek seen seen seen seen mbir yëpp si yàlla si maanaam si yàlla lañ ko aj waaw du man du ñuy bind lettre kenn naan dimbali ma lii wa defal ma lii comme sëriñ daara yi lu ma leen di lu ma di dénk mooy nañu am yërmande si xale yi jàngal xale yi def si ñoom xam-xam. ngir ëllëg ñu mun a nekk ñi nga xamante ni dina nekk relevé si si si si si si si dëkk bi waaw loolu laa daa am lu ma leen di dénk. wax nga ko léegi mu naroon ma échappé muy internat yi comme ni indiwul gàllankoor ci ci ci seen liggéey yéen ñi nga xam ni yéen ay daara ngeen yor internat yi aussi mu nekk ay daara jàngukaay mais nekkin yéen wuute lool ndax indiwul leen ay gàllankoor. déedéet indiwul benn gàllankoor ndax internat mun naa wax ne. dañoo dañoo jël daara li ñu jël moderniser daara ji dégg nga loolu question de moyen la rek ñu ñi tey ji bu ñu amoon moyen bu ñu neexee bu ñu def ko xale yi di ñëw di jàng di fay dégg nga mais nag am ñoo xamante am nañu moyen def loolu loolu yàqul dara ndax ñëpp lépp lépp si xeetu njàngale rek la bokk parce que tey jii ku ne ku ne ku nekk si daara di jàngale ne soxla woon ndimbal ne soxla woon ndimbal dangay wax lu la neex dégg nga xataa yàlla instant dafa toog benn instant mu ne ñu mu àndal man ila ilallah kan mo kan moo may dimbali ci yalla apôtre ne ko nahnu nu allah ñu ñoo lay dimbali ci yalla kon kep ko xam mu ngi woote ci yalla di nga soxla ndimbal ñi nga xamante na yor nañ seen nimbal de nga buñ buñ buñ ko defé ci dara ji ñun duñ ko bañ kon ñi nga xamante ni yalla denk na leen wërsëg nañuy fexé di jël seen alal di duggal ci lu melni ci ay dara na de nga ñi nga xamante amuñu doole ñu dimbali leen loolu daal laa leen di dénk dégg nga di di wàcce foofu samay kàddu. bala nga bala wàccee say kàddu rek ku émission bi bëgg a ndimbal ban fan fan la leen di jotee. man maa gën a nekk si daara ji ak sëriñ bi te sëriñ bi yoru téléphone. waaw man daanaka sama téléphone lay wuyoo kon lu ñu gën a soxla instant bi sànq wax naa la ko si njëlbeen. nee naa la ko salle de boo xamante ne nii xale yi danañ ci mën a jàng normal. dégg nga bu tawee dinañ mën a jàng. dégg nga bu taw dinañ mën a jàng waaye xam nga bu dee amoon salle salle de bu baax bu nawet doo mën a jàng normal day jàng affaire bi taw xale yi ñibbi jàng bi day sooxe lu mel ni salle de classe ak euh, toilette yi nga xamante ni tamit soxla nañ ko dégg nga ak même chambre sax boo xamante ni tam bu ñu ko amee tamit baax na parce que taalibe à chaque fois day gën a yokk ñi nga xamante ay à chaque fois day gën a yokk nag tamit da ngay wut say matuwaay yoo xamante ne nii tamit pour bu ñu ñëwee nga mettre leen dans de bonnes nga xamante du ñu am benn jafe-jafe waaw loolu daal loo xamante ni loolu daal soxla nañ ko pour l'instant waaw sama numéro mooy 77 258 87 87. 258. lu ñuy tàggatoo rek mooy ñuy sëriñ bi ñu gën ko xamee ci sëriñ kan daanaka fii école na fii amul amul amul koy wax sëriñ kan te xamu ko. fii nii képp koo xamante tund bii nii képp ku fi ne ba tund Fodé ba ba tali bu mag képp koo xamante ne nii yaa ngi fi yeewoo rek xam nga kan mooy Serigne kan boo fi jàngewul sa doom jàngee na fi sa doom bu fi jàngeewul sa sër jàngee na fi kon ñu ngi tàggatoo di ko ñaanal yàlla tamit yàlla bàyyi ko fi ba si kanam mu gunge ñu ba si kanam ak kanam yàlla tamit ñaan yàlla tamit daara ji yàlla gan ko sukkali yàlla indi xale yi yàlla dégg nga xam-xam bu ñuy def si moom tamit ñu comprendre xam-xam bu ñuy def si ñoom ngir ëllëg ñu mën a doon dara ñun suñu objectif loolu la du xaalis du dara dañoo bëgg xale yi def si ñoom dara ngir ëllëg ñu doon dara loolu lañ bëgg loolu la ñuy tàggatoo di di gërëm tamit ki nga xamante ni mooy Mass Ndiaye moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ndax euh, arab yi dañuy faral di wax rek inna li kulli shay'in sababun mbir boo ne mbir boo gis dafa am sabab moom mooy sabab bi di leen gërëm yéen tey Pikine Info dénga di ñaan yàlla tamit seen kii bi gën a yaatu gën a nekk télé bu mag a mag di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla def leen ay mag ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Maodo Cheikh Tidiane radiyallahu taala mu nekk Daara Serigne Kane nekk fii ci Pikine école fu kàcc bu ñuy wax Daaru Rose dégg ngeen tamit li nga xamante ne bi sollicité nañu ko dañu moom la soxla mu am rek yoo xamante tamit tamit mën nañu leen ko ci dollil muy ay matelas yu xale yi di tëdd ay drap ak ay yére ay dàll yooyee it xale yi dañuy faral di ko soxla te du bari lool li nga xamante ni bi dañu koy am ñu leen di jaajëfal ñoom i tamit bu baax a baax ñoom ñu ñu fekk si di ñaanal sëñ bu mag bi yàlla bàyyi ko fii ba ci kanam a kanam mu gunge gunge xale yi yàlla def jàmm ci daara ji ba képp xale boo xamante ni mu ngi fi di wut xam-xam li mu fi wut yàlla may ko ko. sëriñ bi daal alhamdulilah rek yàlla na yàlla yokk falam may ko jàmm wér ak sutura. suñ la ne woon tey nga tari benn saar tëjee ko ban saar ngay tari internet yi. suratul fatax naa si muhammadur rasulullahi wallazina maahu asiddaaw alal kuffaaru hamaa baynahum تريهم رقعا سجرا يبتقون فضلا من الله وردوانا سيميهم في وجوههم من أصر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قزر أخرج سطعه فآزراه فاستعلز فاستوى على سوقه يؤذب الزراع ليعز بهم الكفار وعد الله الذي آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم jërëjëf internet yi def nga loo xamante ni bi Papa Talla Ndiaye mënu ko maas mënu ko ñu ngi leen di jaajëfal yéen tamit di leen jox dig daje yeneen programme fii ci Pikine Info jërë ngeen jëf lii lañ leen indi loon tey internet yi dig daje lañ leen di jox beneen yoon ak yeneen i programme waaye laata loolu añuy jaajëfal ñi nga xamante ni saa suñu indee suñu ay vidéo ñoom ñooy toog di ko seetaan di jaajëfal ñi nekkoon ci ginnaaw maas jaajëfal naa la bu baax baax lil Pro sama xarit sama sinapeur bi jaajëfal naa ko moom tamit bu baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi safoote faale Pikine Info ñu leen di euh, jox dig daje beneen yoon yeneen ni programme fii ci Pikine Info yaa ngeen jëf. Yeah.